mbokk yeeg xarit yi nu ñuy nañu leen ziar leen te leen i ñaanal nag jàmm ju sax dàkk yéen suñuy mbokku internet na nag solution TV solution info. Euh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag ñu ngi leen di ziar bu baax a baax te leen di wax comme ni mu leen ko waxee woon rek vendredi désormais l' émission des émissions lundi bu nekk di ngeen ko am ci bu 15h jotee euh, tey jii nag ñu fas yéene ànd ak comme ni ñu defee rek ak Alaaji Sanjoogu Meng balaa ma koy jox kaddu gi nag mu nuyoog euh, internet yi damay daal di ñaanal Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xalifi ci biir réew mi yëpp maa ngi lay bàyyi nga noonu nuyoo ko internet yi. ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziyaar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaan ci yow. dem nañ ba Touba Mbacké nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg ànd ak wér. waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp. nuyu nañ ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi. di am mbégte ak kontaante tey di altine ñuy door euh, l' émission des émissions altine mu nekk loo xamante ni lu am solo la alhamdulilah waaw kon di ñaan rek borom bi def ci barke waaw yëkkati ko euh, ba mu kii parce vendredi bi day xat torop mm, mm, mm. waaw moo tax ñu indi ko kii mais nag baax na ak tamit xibaar yi nga xam ne bi ñooy jàll ci weekend bi boo defee nga mën a ràcc barastiku mm-hmm. macha allah sukuraan ñi ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yëpp jaam ci ñëpp mbégte kontaante Demba jërëjëf kàddu yi rafet na macha allah yal na yàlla nangu ñaan di wax ne nag l' des émissions week-end bi nag am na ay wax yoo xamante ne ni jot ngeen ko dégg ci penc mi kenn ci ñoom muy Cheikh Yérim Seck ñëwaat ba tey ci dossier Ousmane Sonko ginnaaw bu mu nangoo euh, Pastef doole bi mu am waaye nag tey ji wax na ci euh, li nga xamante ne ni moom la Sabasy Faye jël comme décision réquisition bi nag ci la àddu waaye Daouda Mine moom moom nag am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko yu wuuteek yi nga xamante ne ni moom la sax euh, yirim wax daañu ci ñëw ci kanam tuuti bañ ca noppee nag daañu ànd ak kii di Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké moom itam joxe na ay explication ak jéemoon ñi liiral yenn ci ay article yi nga xamante ne ni loi wu Sénégal moom moo ko tëgg euh, bu ñu euh, noppee ci moom nag daañu ànd ak yi nga xamante ne ni moo di maître du dundoo yi moom itam ñëw na ci li nga xamante ne nii rek moo di décision de justice bi nga xam ni dox na ci juge si Faye ak agent euh, judiciaire de l'État boobu boobule daañu ñëw léegi léegi gën ko yaatal comme ni niñ koy defee toujours laaj yi dañ koy dooree nag ak Cheikh Yérim sekk yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci euh, refus de récusation boobu nga xam ne jëm na ci dossier Ousmane Sonko ak euh, nañ ko doon acté ca Ziguinchor euh, moom nag Daouda Mine am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko daal di koy weddi ñu daal di dem xooli loolu daal di dellusiwaat. D'abord Pastef est numériquement PASTEF est électoralement une réalité politique du Sénégal d'aujourd'hui. Hmm. Ça, c'est incontestable. À, à propos du dossier Ousmane Sonko, comme vous le savez, c'est un dossier pendant, avec un recours au niveau de la Cour suprême, avec la contestation d'une décision basée sur un refus d'une récusation. Il faut rappeler en droit que la récusation est une procédure normale. Par exemple, si je suis opposé à vous, Euh, si notre dossier atterrit dans les mains de votre frère, oui. j'ai le droit de récuser votre frère. Oui. Parce que je peux présumer que vos liens de sang euh, vont empêcher, vont se traduire par un manque d'indépendance dans l'appréciation concrète, l'appréciation objective des faits. Concr Maintenant, comme c'est une procédure pendante, et euh, la justice a en démocratie un statut qui lui garantit euh, euh, l'inviolabilité de, ses, de, sa, de ses décisions l'inviolabilité de l'instruction, oui. le secret de l'instruction, le respect de la décision des juges, le respect de la magistrature. Oui. Je pense que la, la, solution la plus sage, la posture la plus sage à adopter, oui. c'est d'attendre que la Cour suprême statue. Oui. Wow. Euh, texte mhm. Le juge, il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est mhm. le texte. Ce fait qu'il y a une récusation, c'est prévu par les textes. Mhm. mun naa benn juge war ma juger ma ne kii du ma juger parce que du nekk ku partial mais récusation dañ ko encadrer par la loi su fekkee ne da nga nekk en matière fenal récusation code de procédure pénale moom moo ko prévoir dans son article 650 et suivant daal di wax dans quelles conditions la mën a récuser benn juge mhm. et même texte boobu daf ne même boo récuser juge bi loolu désaisiru ko oh il faut que ñu bàyyi ba cour ba cour d'appel président cour d'appel daal di statuer mhm. li xawoon Ziguinchor on était même pas en matière pénale on en matière civile donc code de procédure civile moom mooy appliqué te boo demee ci article 223 bu code de procédure civile ma ngi cay wax également dans quelles conditions la ñu war a récuser un juge te la ñuy wax foofu moo de mm-hmm. il faut que juge bi ak benn partie au procès am lien de parenté soit mu nekk sa papa wala sa yaay wala sa doom wala sa cousin wala sa nangam ak nangam wala ngeen am ay lien d'alliance mu nekk sa goro et consort l'une des partie li xewoon Ziguinchor euh, ki nga xamante moo nekkoon parti au procès Ousmane Sonko la woon et non pas un membre de son parti mm. et par conséquent dire par exemple que un membre du parti de Ousmane Sonko dafa apparenté à un juge correspondre ak li nga xamante moom moo nekk du tegu ci yoon parce que nekkul ci jàngat ba Modou Diouf alaaji dégg nga euh, kàddu yooyu nga xam ne seex Yérim yëkkati na ko wax nag ci wàllum refus de récusation bi Daouda Mine mi nga xam ne nag chaque jour mi ngi wax ci wàllum droit moom tamit ñëw na ci beneen anam wax juge bi nu mu war a doxalee ak nu ñu war a exécuter yooyu la mbir dikk na sax ba expliquer conditions yi nga xamante ne ni war nañ ko récuser ab juge euh, muy expliquer donc nekkul sa goro wala ngeen bokk muy sa papa wala loo xamante lié foofu li ni war na fa mën a bañ am. waaw macha allah. Mhm. <laughs> xam nga réew mi moom ma jigéen dafa nekk réew moo xam ni réew mu neex la quoi euh, réew mi dafa nekk réew moo xam ni euh, dañ lay wax ne yow doo nandite quoi mhm. nandite yi ñoo ci doon génn nandite mhm. nandite nag foo ko fekk. mooy ki la dàq tappale. ki doon. dàq ah, tappale moom lañ naan diw naante la mooy kiy nax baayam mm-hmm. <laughs> tuur leen lëndëm dem kooku lañ naan nandite mm-hmm. ki nga xam ni fexe na ba règle yi ñu teg mm-hmm. mu jalgati ko def la nga xam ni moom la bëgg a def la plupart ñooñu la ñuy wax nandite ñi nga xamante ni bi tey bu doon ko doon natt ci xale bu jigéen mooy xale bu jigéen bi nga xamante bi day wax papa maa ngi tëdd tàgg ko ba ñëpp dégg mu tëb volontaire génn dem ñooñu lañ naan booy bi nandite la seer yi mooy ñi nga xamante ni ñooy topp règle yi ñooñu lañ naan seer nga mooy ki nga xam ne sa papa da la wax ne la bul génn boo reeree tëddal boo reeree nga tëdd génnoo defoo li nga war a def ñooñu ñooy booy yi nga xam ne seer lañ ci dëkk bi ak ki nga xam ne ki yam ci li nga xam ne mooy règle yi kooku mooy seer ki nga xam ni mooy jalgati loolu kooku mooy nandite gis nga nag ci métier mi nga xamante ni bii moom lañ ne Cheikh Yérim ci naante yi la waaw gis nga ko bi muy wax avant muy wax dafay bañ a dafay bañ kuu yi dal parce que xam nga booy yi dañoo yor ay yar yoo xamante ni bi waxal lu doy waar ci Pastef rek yar yi daar léegi nag dafa am lu mu leen di leel mooy que ni Pastef réalité politique la boo xamante ni kenn mënu koo dindi loolu moom mooy liy kalme booy yi bu ko defee booy yi nelaw bu paree nag wax li mu bëgg a manipuler teg ko gis nga ko après bi mu paree ci loolu ñëw na ci wàll yoon wax loo xamante ni bi tey ñi nga xam ne seen xam-xam màcc nañ ci ñëpp weddi nañ li nga xamante ni bi mooy kàddu yi mu wax xam nga tey bu ñuy wax Daouda Mine xam nga justice moom dafa am loo xamante ni bi ñu bari lu ñu rafle xam nga tey ji tey journaliste yi tey euh, bu ñuy wër am na ay journaliste sportif am na ay journal ni noonu la amee ay journaliste yuy wax ci wàllu justice ay Daouda Mine yi ci lañ bokk ay Pam Ndiaye ak euh, ñeneen ñooñu comme ay Pape Moussa ñooñu ñoo xamante ni bi dañu dañu ci justice la ñuy liggéey Cheikh Yérim nag mooy ki nga xam ne xam ne moo ko wàll si ci coow li mm-hmm. mooy que ni eh, coupe du monde jot na ñëpp doon ay sportif Sénégal dem na ñëpp nekk ay sportif nga gis ñëpp di wax ci football maanaam fi mu toll nii dafay wax ci justice justice waaye daanaka du cëram ba mu war cee yëkkati yenn kàddu yi di ci wax mm-hmm. moo tax daaw tamit bu lay wax daf lay expliquer yëf yi ni nga xam ne parce que ci lay liggéey ci lay xëy ci lay gont mm-hmm. te li nga xam ne moom lay wax. du am kenn koo xamante ni kii dina ko mën a xam nga lu tax parce que ñooñu lay dajal gis nga lu mu ci jalgati bu demee ci tribunal yi dañ naan ko booy yow keroog li nga wax demee wut nii demeewut nii rus nañ loolu jomm nañ loolu Cheikh Yérim nag lu ko ci neex mën na ko cee wax parce que bu ko ci waxee ba noppi terrain bi muy nekk mën naa dox du daje ba kenn koo xam day yëngu sax ci wàllu justice comprendre nga mais lii intéressant mooy ñoom lii dafa yàgg nag ci réew mi maanaam ñoo xam ni uniquement li ñu leen di doyee mooy ñuy manipuler sénégalais yi mais nag ay Cheikh Yérim dañu dem ba doxatut maanaam ñoom li ñuy def ci ñoom maanaam ñoom ñooy jéem a naxe te yëguñ ñi mënatuñoo nax kenn sénégalais yi léegi kenn mën na leen voilà c'est loolu mooy seen problème moom yëgatut ni mënatula a nax nit maanaam même bu daan mi nga daan nax nit ñi Cheikh tey même bu ñëwee di wax nit ñi dëgg pour sénégalais yi gëm dëgg gi problème lay doon mm. maanaam moom ci boppam di jaarale ci moom dëgg sax wóorutut tey jii bu fekkoonte ni bi da bëgg a wax ne sénégalais yi daw leen génn dëkk bi parce que lii war na xew boo koy wax Cheikh Yérim da nga naan ko mu dem wax sénégalais yi ñu toog dara du xew bu boobaa sénégalais yi daw génn ne am na kon luy war a xew parce que moom ci jëm boppam dañuy jàpp ni rek lépp lu mu la wax seentul ni contraire bi moo war a am. mais moom est-ce que nekkul en retard puisque bu ñu demee ba agent judiciaire bi moom moo dellu ginnaaw moom mu ñëwaat di insister ba tey ci mbirum récusation bi tamit euh, pour. genre moo lay wan ne la maanaam euh, moom ci jëmi boppam nekkul au ci yëf yi ni nga xamante ni noonu la tëddee mm-hmm. mais nag dafay toll foo xam ni faaw ñu génn wax pour yëglu maanaam bokk ci pecc mi xamuñu man tëgg la ñuy tëgg nag waaye nañ ñëw rek di fecc léegi nag nag buñ paree nag ñi xam galeen xam tëgg dañ wax ne Cheikh Yérim de contre temps la génn fii bu boobaa mën nañ ko ramener mu ne dafa juum et cetera mais en tout cas <laughs> dafa yi nga xamante ni bi moo doon dox ci ñoom man tey bu ma doon liggéeyloo ñenn ñi ko ci mel ni Cheikh Yérim ak Madiambal damay xam ne lii baaxu ñii baaxatuñ seeni mbir doxatul quoi maanaam feneen laay jaarale sama bi mais dootu ba a liggéeyloo parce que mënutuñu wax loo xamante ne bi sénégalais yi danañ ko gëm. te nag li am ëpp solo. Mm-hmm. mooy bu njëkk ba dañ daan wax nit ñi di leen gëm. léegi nag dañu yàgg di nax nit ñi moo tax gis nga am réew boo ci nekkee mm. il foo éviter di nax nit ñi waaw parce que di nax nit ñi bés dana jot nga war a wax wax ju am solo am sa dëgg war koo wax mais boo ko waxee nit ñi dootuñu la déglu moo tax bu ñu lay déglu. fexee la xam li tax ñu di la déglu loolu nga xamante ni bi moo tax ñu di la déglu nga sàmm ko parce que bés boo ko jaayee nit ñi dootuñu la déglu te li si Lamine doon wax day ñëw dañ lay xeeb ba pare yàpp la te foofu mooy fi nga xam ni fa lañ toll am na tey ku doon fëgg dënnam di taxaw di ndamoo Seex Yérim tey buy wax da koy ciipatu te loolu nit ku ne war nga ko jombale sa bopp jërëjëf en tout cas moom ba tey mu ngi am courage di jàkkaarloog askan wi di wax xalaatam euh, dañuy dem nag euh, ànd ak euh, Abdou Bara Dolly moom itam nekk ñëwoon na ca TFM ci émission boobu ñuy wax jàkkaarloo am na ay kàddu yu mu fa yëkkati ñu dem teewlu ko daal di dellusi dañoo dugg ci phase su parrainage s'il ma ma ma wax ko xoolal article 29 alinéa 3 alinéa 1 le candidat dépose de greffe de conseil constitutionnel 60 sourds francs au moins de cinquante euh, euh, cinquante sous francs plus devant le premier scrutin. Alinéa 2. Toutefois, le candidat décédé, un candidat déposé de nouvelles candidatures, possible de tout moment euh, sous score des, euh, euh des villes scrutées. Alinéa 3. waaw alinéa 3 bi nag fu mu ne nii ah, alinéa 3 alinéa 3 dans le dans le cas de élection c'est grave su rapporté de nouvelle nouvelle. waaw nouvelle date par conséquence mais jóg ko. délai xam nga maanaam tey président la président la république candidat la wax waaw la candidat la loolu lay niru mais loolu laa wax mais li ma si yokk mooy xam nga bii dama si def amendement la tax ma def amendement sëñ man doomu daar laa man aw ma complexe wax parce damay wax ni lii boo gisee ma def si mooy conséquence na tey bu benn candidat faatoo comme ni mu ko waxee d'accord mais conséquence bu ko neexee mu daax élection yi deux cent wala cinq ans amul délai ah waaw loolu moo tax ma defoon amendement pour que les conseils constitutionnels si 60 jours mu tëgg élection yi. Babacar foofu amul délai. mu amul délai. Ah. moom. jërëjëf Modou Diop euh, en euh, de mbëbëtam bokk na ci ngir rek mu nekk président 2024 ci élection yi ñu jëm parce que nee na euh, gisul kenn koo xam ne rek ci candidat yi ñuy gis la ku ko gën a pour mu nekk président jiite Sénégal Alaaji est-ce que. mën nga ma expliquer li Abdou Bara Dolly yi doon wax lan la parce que man vraiment. waaw xam nga Abdou Bara Dolly yi hmm. li muy wax lan la moom ab làkk la bu mu maîtriser rek làkk moom làkk la rek hmm. muy làkk ab tubaab seexante da cee waxoon wax ju am solo. Hmm. wane ni am réew ngir mu jëm kanam faw mu jariñoo li nga xam ni mooy làkkam. waaye ñu bari ñi ngeen di gis ñu ñëw sol ay veste jàkkaarloog yéen liñ leen di wax buñ leen ko firiloon ci làkkum olof bi ngeen dégg ay yar ngeen di wut duma leen mais léeg-léeg ñu impressionné la ci li nga xamante ni bii mooy kàllaama gi ngeen déggul ñu wax ci loo xamante ni da ngeen di yéemu te fekk ne wax ji du waxi dara ñun nag Sénégal. dañu tënk mbir yi ne ngir nga mën a jiite réew il faut que nga dégg tubaab d'abord loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li new parce que bu fekkoon ne dañ ne il faut nga jàng nekkul ni ñi jàng nañ sëñ Abdou Bara Dolly mi jaar na ci ay daara jàng na ñii tey nga xam ne lii muy wax ñi ngi koy ree bu fekkoonte ni jaar nañ ñëw nañ ci li nga xamante ni bi moom la jàng ñoom ñooy wax mu di leen reye mais li ci doy waar nag moom euh, parce que damay ñaawlu moom li mu def waaw parce que war a def waaw parce que nit ki loo mënul bu ci dugg parce que loolu non seulement da ngay xeeblu sa bopp euh, aussi da ngay jox raison ñi nga xamante ni bi ñi ngi nasaxal boroom ñi jàng li nga jàng wax ji loolu mooy li nga xamante ne bi moom mooy li ci garaaw parce que au lieu que nit ñi yemati ci sëñ Abdou Bara waaw def na ko def na ko ay yoon mam moom da koy def uniquement li mu ci jublu mooy lii mooy reeloo nit ñi mm. euh, moom la ciy jublu mais dafa am beneen message boo xamante ni maanaam dafa am bunt booy ubbi bu ay nit di jaar pour nasaxal ñi nga xamante ne bi ñoo jaar daara maanaam ba dootuñu leen boole ci course bi te loolu bunt boobu bokk na ci ñi nga xamante ni bii tey kàddu yi muy lii muy yëkkati bokk na ci li leen koy ubbil maanaam day tax nit ñi am neneen nuñ leen di gisee te doomu daara yi gis nañ leen ay taxaw lu bari loo xamante ni bii ñoo ko taxawal ci réew mi yoo xamante ni bii tey it séentu nañ nit ñii nit lañ loo xamante ni bii tamit jàng nañ et am nañ leen ci ragal borom bi tey jii ñii nga xamante ni bii ñi ngi ree et pourtant à chaque fois président Macky Sall dem na fi dugg ci ay xasida wax noo xamante ni bi doy waar mais da ngay gis ni garaawul quoi mais li lii garaaw mooy nga yàq mu français mm-hmm. donc nag moom bi mu xamee ni munta a prononcer yenn yi wa ilaa mënut a lire yenn yi euh, waru ci woon xuuse nii parce que bu leen bu ci xuusee nii rek day jox dëgg nit ñi nga xamante ni bii dañ naan doomu daara yi nañu yem rek ci daara yeeg yooyu mais bu ñu jéem a xuus dugg si li nga xam ne mooy yoru réew parce que gis nga exemple lu Cheikh Abdou Bara Dolé ngi ne euh, xool ko ni muy waxee te am na ay doomu daara yoo xamante ne bi jàng nañ daara. Mm-hmm. wëlbatiku lii ñuy wax mën a liir mën a bind. mën nañu liir mën a bind mu leer sax. Mm-hmm. yoo xamante ne bu ñu toogoon di wax tey di bind ak di kii. da ngay yëm suñu Cheikh Ahmad Tidiane si mës naa ko dégg mu wax ne xaw ma kan da ko laaj da ko ban université nga génnee mu ne ko maa ngi génnee ci université bu ñuy wax université bu nekk Tiwaawan comprendre que c'est pour montrer la que ni niveau d'intellectuel fi nga xamante ni fii fa la yegg et pourtant doomu daara la pour te diir que ni ñu mel noonu bari nañ ci réew mi ñoo xamante ni bii tey bu ñu làkkee tubaab nga signé te boo leen fekkee ci arab bi xam ni moom la ñu jàng mm-hmm. donc ñooñu nag. am nañu sañ-sañu tey ni ñu të tëggee loi bi laaj réew mi peut-être que ni ñooñu buñ demoon ba jot ci réew mi mën nañu soppi li nga xamante ni bii tey moo nekk gàllankooru ñu bari parce que li nekk gàllankooru ñu bari mooy que ni yow mënoo làkk bi te làkk boobu du sa làkku réew. waaw tey jii ñu jëloon beneen langue fii ci biir réew mi ñu ne ku ko mënut sax moo doon tane parce que mënoon nañu jël moo xam. Euh, wolof alpulaar séeréer euh, kii mais làkk bi nga xam ne moom la ñuy gën a wax fii ci biir réew mi ñëpp xam nañ ñi fii olof moom ñëpp dégg nañ ko bañ nañ ko sax ba moomale wuñ ko kenn dañ ne làkk la boo xamante bi làkk ñëpp la rek parce que tey boo ñëwee ne olof la gars yi dañ naan la olof amut parce séeréer bi day làkk olof alpulaar bi da koy làkk joolaa bi da koy làkk tout le monde ñëpp dañuy làkk. mais mais El Hadj lan moo tax euh, jafe boobu jafe-jafe boobu sénégalais yi am ko parce que souvent même bu nekkul moom kase nit da ngay gis mu ngi làkk français bu defee benn foot bu ndaw rek nga gis ñi toog ñëpp di ko reetaan est-ce que jotul tamit ñuy jéem a xam. fi nit ki di waxee parce que moom bu muy wax ci affaire euh, élection yi lay wax ni ñu koy tëggee ak bu ñu ki organiser ñu dem ba ci biir kandidaa yi kenn génn ci àdduna war nañu defar ak yooyu noonu xool nu ñuy defaree ñu jéem a comprendre li muy wax. mais pas di ko saboter. boobu ki ñu ko indil Senghor la Senghor mii ñuy jaaye bagaasam moo ñu ko indil. Ah. Ah, moom ci jëmi boppam Senghor tubaab la waroon a doon waroon a doon euh, africain. Hmm. waaw parce que Senghor dafa am fu mu tegoon langue français am na ay jamono yenn mooy ñeme woo koo wax. dangay gis ñi nga xam ne ñoo doon jàng ci jamonoy Senghor wala ñi daan présenté journal. Hmm. foot ñeme woo koo def. Hmm. ci làkk bi nga xamante moom la ñuy laax làkk ki parce que dañ leen doon contrôler bu baax a baax boo dégloo mag ñi wala ancien RTS yi dañ la koy wax dañ naan la ancien ORTS sax la woon ancien yi nga xam ne ñoo fa nekkoon dañ la koy wax dañ lay wax ne la am na yoo xamante ni bi kenn ñemewu ko woon a wax nga gis ni sénégalais yi dañu tënk woon ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax mbir moomu donc loolu mooy suñu problème boo gisee problème bi nga xamante ni bi moom la am boo seetee Côte d'Ivoire euh, ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax au fait au fait daal yi làkk waa ko làkk leen ci nu mu leen neexee. comprendre nga nu leen neex la ñuy làkkee moo tax ivoiriens yi boo leen gisee ñoom ñëpp dañuy làkk dañuy làkk français. Mhm. waaw parce que da leen nàmpu leen ko nu ngeen waxee baax na. Mhm. yaa ngi dégg mhm. mais ñun fii dañu amoon problème moo tax dañu demoon ba nit ñi ragal a làkk tubaab nit ñi dañu ragal sax làkk làkk bi comprendre nga te boo demee tey Côte d'Ivoire. nit ñi nii la ñuy waxee français façon bu leen neex la ñu ko waxee kenn du la ree parce que xam nañ ni du sa làkk boo ci waxee juum sax mais fii boo fi waxoon benn moo juum rek ñu lay kenkeŋee mm-hmm. loolu nag Senghor moom moo ñu ko teg ba tax ñu am idée boobu gëm ni tubaab bi moom dafa war a parfe làkk la boo xamante ni bii kenn waru ci juum même yow làkk bi nga nàmp sax bu fekkente ni bi def nga ci njuum te garaawut kenn du la ci reede mais boo juumee ci français bi rek tey nga dee loolu mooy li nga xam mais kii nag du question dafa juum dafa munut làkk bi maanaam mi ngi mel ni man ma ñëw taxaw naan maa ngi liir di liiwantu di def yoo xamante bi après dañ lay xeeb quoi c'est que bu fekkonte ni bi dafa bu fekkonte ni dafa damm yàq wala mu def faute et cetera mm-hmm. loolu garaawul mais dafa munut li nga xamante ni bi moom mooy langue bi ñuy wax jërëjëf euh, ñu jeexalee ko nag ak maître Doudou Ndoye moom nag doon na jàkkaarloo ak pap Alé wax itam ba tey ci décision de justice bi nga xamante ne nii euh, wax di dox na ci diggante euh, procès bi nga xamante ne ni ñu ko doon tëggee tëggee ca Ziguinchor ñu dem déglu benn pàcc daal di dellusi jàpp naa la. lépp daanu la ñu war a attewaat léegi kon di nga mën a comprendre décision bi saba si fay jël ci Ziguinchor. ban eh, dinaa la wax loo de. Ah, décision bi juge Sabassi Sabassi Faye jël ci Ziguinchor. man su ma toppee sa logique loolu laay d' ba tey de ma d' accord ma de. waaw man de man de non su ma toppee sa logique laa wax man waxuma la dama waxoo loolu. Mm. ma toppee sa logique gu raisonnement dafay aboutir ci conclusion saba si Faye. non man bu doon man du ma si aboutir. waa léegi expliqué ba. bu doon man dama naan kii kenn warul ko radier liste électorale parce que jugement bi tax amul foofu laay yem parce que nee naa jugement bi amul c'est moom dafa wéeru si jugement bi. si li ma dégg mbokk li ma jàng li ma jàng si dafa ne dañu waroon def publicité nangam dañu waroon yóbbu kayit nàngam dañu waroon yóbbu kayit nangam dañu waroon yóbbu kayit nàngam comme kayit yooyu yóbbuwunu ko nag kon radiation bi warul nekk lu mel noonu la de. mais kayit ko. léegi expliqué ma. bi dafa wax ne. bu nu àttee àtte boobu. waaw waa ji newu fi. procureur. da koy collé ci tribunal bi. mu ngi nii da koy collé. ci tribunal bi ñu gis ko. day def ay publicité extrait de la article 311 extrait de la décision de condamnation est dans le plus bref délai inséré dans l'un des journaux de la République mm il est affiché à la porte du dernier domicile du condamné à la porte de la mairie de la commune et à la porte des bureaux d'arrondissement et ah ñu soog nag euh, teg waa ji la nga xam ne mooy conséquences yi. Mm-hmm. waaw mais bu ñu defee loolu. teg koo conséquences yi. léegi waa jàpp nañ ko. article trois cent seize nee na loolu amatul atte amatul dara amatul ba doo tudd ne defuloo loolu da nga naan rek atte amatul atte bu amul kenn kenn du si rajee nit sëñ bi. atte bu am la ñuy affiché mais atte bu ñu amatul doo mën a affiché waaw parce que tam yenn juristes yi defe ne yi defe ne nañu mën nañ fi jóg commencé affiché commencé affiché commencé collé commencé joxe hmm. nga xëy na léegi li Ziguinchor wax def nañ ko li mu ñu aaye li mu ñu xase def nañ ko avocat laa de hmm. <laughs> avocat jikko avocat bi feeñ na nag dama naan sama client eh, juge bi naan affiché woo affiché woo affiché woo collé woo joxe woo ngir yàlla jëlal ma 24 heures rek ma affiché mu ngi noonu Alaaji Maître du dundooy wax na ko nee na moom avocat mooy wax euh, bu ñu comprendre li ñu lu muy bëgg a wax mooy que ne décision de justice moom dañu ko war a exécuter kon donc euh, DGE ñoom bu ñu waa ji ñëwee di leen laaj fiche bi rek dañ ko ko waroon jox waruñu woon xaar ay notification kii ni mel lay expliquer. waa xam nga Maître moom li ma la wax euh, l'autre jour defe naa. lu hmm. Maître Doudou moom soo ko déggee muy wax rek. Hmm. da ngay yëg ni. nit la kuy wax ci yoon maanaam Maître Doudou que ni li muy wax mu neex la ak mu naqari la mais mooy li ñu bind maanaam moom li ñu bind la lay wax certes wut nag pour neexal kenn nii ma sàmba nii ma demba loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li am solo ci Maître Doudou maanaam bu la expliquer day leer xam nga kiy chercher à plaire buy expliquer rek lëndëm lëndëm day feeñ ci li muy expliquer même sax bu fekkee ne dafa féeteek yow maanaam mën na xaabaabal ba dugal ci ay saf-safalu boppam ba far nga yëg ni yow kii kat li muy àtte même féete na ak yow waaye am na ci loo xam ni est-ce que yoon la Mame mm. Ndooy day yem ci li nga xam ni mooy li yoon wax dégg nga ko xam Pape bi mu nee ko bi ma la dégloo day mel ni yaag juge bi yéen a bokk raisonnement dana ko déedéet bu doon man la dama naan atte bi amut parce que lii maanaam lañ ñu àtte woon ba tënku ca loolu moo amut sax far ba noppi wax nan la war a demee ngir mu am ngir ñu ne àtte nañ ba rajo ko waaye dana moom àtte pour rajo ko sax moo amut moo existé wut far parce que bi mu amee bi ñu ko defee ba noppi dañu waroon a jël kii bi affiché ko fii def ko nii affiché ko fu ne def ko ci mairie baag kii baag dernier domicile am ak yooyu yooyu yëpp xam nga dafa expliqué ne loolu yëpp ginnaaw loolu amul léegi nag nee nag bu waxee loolu dafa wax ne bu waxee loolu ba noppi nag bu dee eh, kii bu loolu mën na jaar ci suuf nag daan li ñu tribunal Ziguinchor nañ gaawantu affiché mu ne nag boobu nag avocat bay wax foofu la wax avocat bay wax ko comprendre mm-hmm. mais pour te dire que ni lépp mu la wax rek mooy que ni li ci am solo mooy que ni juge bi bokk naa ak moom li nga bokk naa ak moom li nga xam ni mooy gis-gis comprendre nga ci li nga xamante ni bii mooy mbir mi juge bi li mu àttee euh, li ci doy ci jamono jiñ toll nii mooy réew mi tendeefal gi ñuy tendeefal ci exécuter li nga xam ne moom la wax décision justice te ñiy tendeefal ñooy ñi ñu doon wax démb il faut que ñu respecter décision justice président Macky Sall wax na ko ne dina respecter décision justice yi nga xamante bi yëpp li justice di loolu tey jii justice àtte na ba pare mais ñi ngi tendeefal mel ni comme si justice moom euh, daal faaleetuñ ko te ñoom ñëpp tey fi ñu ne yoon leen fa teg amul kenn koo xamante ni kii tey fi nga nekk ñoom ñooñ ñëpp di fayeeku ci alalu réew mi du dañoo gën a rafet ci réew mi moo tax ñu deen fay de maanaam yoon moo ne ku def lii ba egg fii ba am lii da ngay nekk fii da ngay am lii. mais te ndefal bi est-ce ci benn côté kese parce que boo seetloo ci mbirum Ousmane Sonko rek ngay gis ñuy tendefalu mais bu dee leneen la dañuy exécuter comme ni ñu ko war a defee. par exemple boo gisee tey li tax ba léegi nii ayib dafay mënuñu ko mënul dem ba ñu jox ko fii wala ñu koy laqatoo kii def yëf est-ce que du waa ji moom moo tax. bu ñu demee ba ña nga xamante ni bii tey ñoom lañ teg ne leen liggéey leen bu kii ñuy mujj di làqatu loolu xam nga loolu mu musiba la ci am réew réew waruñoo làqatu quand même c'est pas sérieux ah, dañu nekk dañu nekk dañu nekk ci réew. non xaar boobu ci jëmmi boppam am na ñoo xamante ni bi boroomi xam-xam lañ tey ji Moodu rek sànq bi ma koy wax ne ma bind nee nañ loolu sax tu seen cër. maanaam ñoom li dul seen cër lañ nekk quoi maanaam nee nañ yëf yi warta tëddee noonu donc li nga xam ne noonu la yëf yi warta tëddee xam nga lu loi Sénégal yi lu leer nàññ la léegi nag bu ci politique raxee ci lay lëndëm lëndëm di am mm-hmm. mais lu leer naññ la mais nag lëndëmal loo xam ne bii ñi xam xam nga tey bu fekkoon ne man ak yow dong ñoo yëg mbir mm-hmm. ma ñëw lëndëmal ko sax mën nañ maa ne bon saa lañ gën a gëm mais bu fekkente ne bi loo xamante ni ñëpp dañ ko xam bind ko teg ko fi nga xam ni ay nit mën nañoo dem sax gëstu ji ko ñoo xamante ni bi xam nañ kii génne ko gone gu ndaw mën naa génne sànq bi Cheikh Yérim di la demal daaw de miin moo ñëw génne li nga xamante ni que te Cheikh Yérim sax lay wan ne la xamut fu jaar gi di dafa mel ni daaw de moo ko njëkk a wax man defe naan moo ko njëkk a leeral lii mu ñëw di la demal hmm. comprendre nga c'est loolu mooy li nga xamante ni bi mooy problème bi yëf yi leer na nañ ngir yàlla li nga xamante ne bii moom la loi bi wax nañ koy jëfee xam nga tey loi li mu wax teg ko ne lii la loi bi wax wallaahi buñ ko doon àtte benn problème du am ci réew mi saa yoo déggee gaa yi xëccoonte rek am na leneen ab loxo bu ci dugg mais bu fekkonte ni bi justice kese lañ bàyyi muy def liggéeyam mm. amut dara ko kii wóor na yàlla. problème du am mais gis nga nag réew mu am ay jafe-jafe rawatina suñ réew Afrique yi yoon am na ca part de responsabilité parce que yoon bu jekki-jekki bëgg a jàdd mooy faral di indi ay jafe-jafe ci suñ réew Afrique yi donc il faut que ñu fexe ñi nga xam ñoo yor yoon dañu am responsable parce que même ñi nga xamante ne bi tey ñoo nekkoon dictateur sanguinaire yi gën a doy waar ci àddina bi ku ci mel ni ay Saddam Hussein ay ñoom stalin bi nga xamante ni ñu ngi def li ñuy bëgg a def maanaam nit ñemewut a tëb tëb rek def lu mu bëgg def nii mais dina ko jéem a yoolal dina wut ay magistrat yoo xamante ni bii ñooy nangu yenn yi comprendre ga ñu jaaral ko ba ne lii la yoon wax fii manipuler texte yeeg yooyu ngir mën a def lenn li mais fekk li nga xamante ni bi àddina bi ñëpp dëxoonoo nañ ko réew mu ne daal ne lii mooy sama yoon fekk magistrat yi ñu ngi koy topp jafe-jafe mënta am ci réew jërëjëf Mbengue Aïcha ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf. Mhm. di joxante dig daje beneen altine ci kàttanu borom bi. jërëjëf Mbengue analyse yi am na solo lool macha allah di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne nag yéen a ñu doon bàyyi xel durant trente minutes yi ñu fi toog di jàkkaarloog yéen alaaji di leeral mbir yi ba mu gën a leer ay ca ñu daal di koy jaajëfal moom moo Modou Diouf Abdou topp ak Lay Diallo gërëm leen yéen internet yi di leen jox di daje nag beneen lundi incha allah.